bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayyidina wa mawlaana muhammadin al amiin wa ala aalihi wa sahaabatihi al ghurri al mayaamiin wa ala xayri xadimihi dil xabli al matiin wa ala man iqtafa athaaruhum ila yawmi ddin bokk julli de assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa ta'ala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci weeru tedd wi nu nekk teen ci ndokkeel xam ngeen ne fan yi ñu nekk mooy fan yi ci gën muy fukki fan yu mujj yi ndax yonent bi saa ko wax te di ko jëfe ndax neen bu fukki fan yu mujj yi da ci daan gën a takk laxasaayam gën cee farlu yokk mboolem ay jëfam di yaay waa këram guddi ñi di ko dundal ma ci laylu xadar sax daana wax ne ko dàkk ci fukki yu mujj yi di ko dàkk ci bis yu tool yi xam ngeen màggal nañ ko guddi gaa juma genn weesu yàlla nañu ko sun borom nangul te lanu ca ñaan lépp yàlla na ko yàlla na suñu doon nangu ñaan ya te e, fekk la waat na ko at yu bare bare bare bari te nangul nu lam ca waxoon ne xayru min alfi shahr yool boobu yàlla nañu ko ca bokk jëlee waaye rek mat fonk tax mooy mooy fukk yi nga xam ne moom la waxoon ne wa axiruhu itqu min an naar muy fukki fan yu mujj yi ak gore la ci sawara euh, tey nag di dibeer di ñaar fukkeelu fan ak ñett ci shahr ramadan al mubarak 1441 hijriya démb ñu ngi yamoon ak yéen te fi ñu leerale la aju ci ku ku ñu maanaa kuy tukki wuutal aji sax kuy tukki di wàññi julleem war a julli ñaar rekk am ngànt xëcc kenn te kam xëcc doon ko fi dëkk ko war a matal moom ñu leeraloon ci ne seen julli na muy demee mooy kiñ xëcc muy muqim imaam amoon na benn rakka dese benn day mottali imam ak julleem mooy day jiite mbooloo mi benn rakka jàng ca faatiha ku saar ndax tisbaar la toog taaya ba fa imaam waroon a sëlmale mujj ñu mbooloo mbooloo mi toog moom mu jóg mottali rakk ñaar rakkaam yi ko desee door a sëlmal su sëlmalee nag mbooloo mi nga xam ne ñuy tukki la ñépp sëlmal ña fa dëkk nag door jóg ñoom kenn ko nekk mottali sa ñaar rakkaa yàlla dese teñ kenn kenn noo ko ko àggal sëlmal ku ca topp imaam ak julleem yàqu imaam bi muy jóg di mottali koo ca topp sa julli yàqu loolu euh, moom la Saxnuun wax moom la Ibnu Qaasim wax moom la boroom xam-xam misra yépp wax mennum saxnun moo ci wuute ak ñoom saxnun moom daa wax ne su kii motlee julli imaamam ba ñaaraka ya mat ba muy jóg ñaanoon imaam moom nañu sëlmal maa ña cay ay musaafir nañu sëlmal ña cay ay muqim jug topp ko ci ñaaraka ya muy motli ba sëlmal ñu sëlmal jooju wax na daif la daif la duñ ko sukkandikoo kon jee boroom xam-xam daje moo gën a lëng kon lool nag lim muy gudd gudd ak li muy lëj lëj sayxu xalit ci ñetti baat la ko tënk kepp ka anis tax la fa yi muqiman la wax génn ci xool loolu ni mu gàtte te lii ma wax lépp ca loolu la aju kon ba tey day gën a firndeel li ma waxoon ci fasu goo xam ne xalil da ko fasu day fekk lu bari mu tënk ko ci ñetti baat kepp xam ki nga koy jàngal bu ñu ko ko leerlu du ko mën a xam mukk loolaa wax ci bayit yi ne ndegam imam da di musaafir jiite musaafir ak muqiim mu rax ñam jiite muqiim mooy ñu fi sax mooy ñu fi dëkk ndegem imam da di musaafir jiite musaafir ak muqiim mu rax ñam jiite te mooy imam di tukkikat ña koy royet ñenn ña sax ñenn ña doon ay tukkikat te ngànt dab imam mu xëcc kenn nag ndekete kam xëcc ku sax loolu nag sim nañ ko waaye illa rekk a koy waral nu deesi def ci julli googu jëfewul na jëkka mottalil imam jullik tukkiyam mbooloo mi mépp roy ko nag ba cig matam mu junji leen ñu jekki ñoom ñépp mu jug mottul nag jullik saxam ñépp ngi nekk bu sëlmalee na tukkikat yi sëlmal ñu sax ñu jug mottali doora sëlmal te moo di wax jillëg nga ngir na shaxnuun loolu la wax ak ibnu xaasim naka noonu loolu la boroom xam-xam misra wax itam ibnu kinaana wax leneen ngir dane boom su mottilee jullik tukki su mottilee jullik tukki ka doon imaam na tukkikat yi yépp sëlmal te nekkaam ka doon xalifa ba ka doon xalifa yi ndegam jug na ba fay ñu sax ñoo ñoom yi nañu jug te dal di ibnu kinaana moom loolu la wax te lool mu la wax ibnu kinaana ibnu kinaana ibnu kinaana loolu la wax te lool nag daif la duñ ko duñ sukkandikoo ci loolu mukk kon wax ibnu kinaan ci loolu daif la waaye wax jee mooy moo gën a lëng moom la ñuy sukkandikoo li ci topp mooy joox gu ànd ak fay ci julli mooy lan kii kat day julli suba waaye daa yeex a julli bi mu kàbbaree jàng faatiha ku saar rukon jant bi fenk ba mu rukon jant fenk kon tàbbi na ci waxtu yi ci saaxir ndax mooy am na benn rakka bu mat jant ci ci waxtu yi jant door fenk su ko defee bi mu amee nag benn rakka ci rakkaam ñaar la am keneen ku dugg si ñëw kàbbar roy ci roy ci moom rakka rakkaam bu mujj biñ ba nga xam ne rakka mujj façon na imaam ja ak ndof dab ko léegi luy mbirum imaam ja ak luy mbirum karoy ci moom mooy lu lëj la kii moom ak julleem day daal di yàqu imaam ji gannaaw ndof ga dam na ndof dam na ko te julli ga matul rek julli googu yàqu na moom waaye kii nga xam ne moo ñëw ndoo ci moom ak julleem moom day yàqu li tax ak julleem yàqu may jullig imaam joox la tamam ak julleem fay la li tax imaam ak juleem di jox mooy am na rakka bu mat ci waxtu wi moo bi muy dugg si fekk na jant fenk kon rakka ba mu roy ci biti waxtu wi la mooy ci ci kon daa day fay la doon tax ak juleem baax mooy mu fekk rakka bi njëkk ba wala boog imaam imaam xellu ba julli ga mat su imaam xelloon ba julli ga mat nag da koy yóbbaale ca rakkaam ba mu am ca waxtu wax su ko day mel ni ku jox moom itam waaye gannaaw imam ak ndox dab na ko rek ko moom julleem julleem day daal yàqu kon faaw fekk rakkaay njëkk ba mbaa imam xel wa julli ga mat rek lu dul lool nag moom daa roy day day fay roy ci koy jox te woon nañ kuy fay mënta roy ci koy jox kuy jox mënta roy ci koy roy ci koy fay ku ko ci def rek ka roy ak julleem du baax kon moom faaw rek dafay julliwaat loolu moom li muy lëj lëj lëj muxtasar xalil ci baat yu gàtt la ko tënk dafa wax ne wa tudraku fihi subh bi rakaatin la aqalla wal kullu adaawun loolu mooy lan loolu bu ñu ko ku ñu ko leerlu mënoo koo xam laa ci bay diine waaye ngi nii julli subaam di nit ku yeex dem baru ko rakk bu njëkk guddi jeex ci fenku jant rakk ci fenku jant rakk bii ci jiit bii ci jiitu kon tàbbi na waxtu ci saaxir ci saaxir si du fen tàbbi na ci waxtu ci saaxir gis tàbbi na ci waxtu wi fa saasa am ko agsi dal roy ci moom rakk ba mujj ba mu faso ndof ne ci moom moom di imaam ji mooy ki dof kon ki royoon lu doon mbiram ci ak julleem ci wàllu yoon julli ga day yàqu ndax jullig imaam jox la tamam julleem dafay neema na am li tax li tax jullig imaam di jox mooy dafa am ca waxtu boobu ràkka bu mat na ko xalam ràkka bu ñaare ba di bitti waxtu wa moom la karoy fekk mësul ca waxtu wa kon moom mësul dara ca waxtu wa te kenn du fay di roy ci kook day joxe saa su amee julli karoy day sooxe saa su amee julli karoy day sooxe li fekk amul ci waxtu ràkka bu mat wala imaam xellu ba fekk julli ga mat su ci loolu amul ak julleem yàqu tam imaam xelluwul ba julli ga moo tax ak julleem yàqu moom loolu lu mat a xam la léegi nag ñu ñëw ci ad dimaa u tabiiyatu linnisaa mooy deret yi nga xam ne dana gaar jigéen te ñetti anam muy xaydu ak istixaada ak nifaas xaydu ma la wolof di wax mbërëg mbaa baaxub jigéen tur yi dëgg-dëgg mooy mbërëg moom li tax ñu dee ko baax mooy lim baaxoo dal jigéen lim ko baaxoo dal nga xam ne baaxoo na ko gis rek moo tax ñu ne baaxub jigéen waaye tur dëgg-dëgg mooy mbërëg benn xaaj la ca der la ju génn ci jigéen ci lu amul benn sabab nga xam ne wéri du ko sabab gaañu gaañu du ko sabab ab jël maa lu ko ne du ko sabab maa luy génn la ci amul benn sabab yàlla ko ko bindaale loolu ñu tuddee bo moom la ko arab di wax wolof di ko tudde mbërëg tubaab di ko wax reyagal bu ñaare mooy istixaada istixaada jorngel la ko wolof di firee jorngel mooy ki nga xam ne dafa dëkk ak deret faaw nga xam ne maa deret du dog mukk du ërti mukk dafa dëkk ak moom loolu feebar la feebar la dañ koy faju waaye du ko tee julli du ko tee woor sarte yi ci aju dañ ci ñëw bu buñ buñ buñ ci àggee ci fañ ko war a leerale ca waxtu ya muy julleeg waxtu ya muy bàyyi julleeg fa muy fa muy jàppe ko fa ñu ko jàppe ko fa ñu ko jàppe laabut am na leeral yu yaatu ci aju dañ ci dañ ci ñëw ca kanam bi ko ñetteel mooy nifaas wolof di ko wooyee gësin gësin tubaab di ko wax meret mooy dereti am doom ki am doom deret ji ànd ak doom ji walla mu ñëw gannaaw doom ji loolu la ñuy tuddee nifaas bu ci nekk nag ami charte su dee bi ma njëkkatu tama xaydu muy mbërëg ci maliki ya ngiru maliki dañuy wax ne ngën jaay néewam mooy benn dafan rek dafaatun waaxida mooy benn toq fekk dafa toq benn toq rek yam fa ba tey baax la day sangu gannaaw foofu la yem nag kon day day sangu julli woor ànd ak boroom këram yañ ko tere yëpp dagan ci moom ngeen jaa bareem nag jigéen ñi dañ cee séddi ko ñetti xaaj mooy dañ cee wute cee situation kenn ku nekk xaalam ak environnement bi muy dund ak jaw ji muy dund dafay jaxate moo tax jigéen ñi wóote ci gis yu baax na environnement yi da cay feeñ seeni xaal mooy seen situation ñoom seen bopp di ca feeñ jaww ja ñuy dund di ca feeñ ci tàngoor waag sedd baag mba mba yu ni mel jigéen ñi seetlu ko ñetti xàcc ki koy door a gis ak ki ko baaxoo gis ak ki ëmb su dee ki koy door a gis gis li ëpp li gën a bari bu ko gisee fukki fan ak juróom lay am ci moom fukki fan ak nag mooy li nga xam ne mbërëg du ko weesu mbukk saa su ko saa su ko matee su dugul rek jàppan léegi feebar la dootu dootu dootu baax léegi mën naa sangu tàmbalee julli tàmbalee woor tàmbalee jaxasoo borom këram donte dugut kon léegi wéri di la waaye dootu baax du jeexital na moo xam dafa mbëriñ mi dafa dafa ëpp walla dafa yées mooy kii dootam fekk dafa doggantalu it mooy danga koy gis tey suba nga set jox ko gannaaw suba gannaaw suba nga set an day doggantalu loolu bis yam ko gis lay jàppe bisi mbërëg kon su ko gisee démb ne benn fan tey mu dog su mu mujj saat kon na ko ci lim na ñaar ñaari lu fan kon gannaaw soobu mu dog gannaaw su mu mujj saat kon ne ñetti fan bakar mi fukki fan juróom su ma def fukki fan ak juróom nag su na sangu lu lu mu gisaat matul fukki fan juróom ndax diggante mbërëg ak morom ja ngeen jaay néew war naa mat fukki fan ak juróom su amee fukki fan ak juróom mu mu dog wala dogut mu sangu di julli saa bu gisaatee baax te mëtu fukki fan ak juróom gannaaw bu mu ko bëjee gis ak léegi dana xam ne léegi wéra del du du baax lañu tuddee damoon façade lañ koy lañ ko tuddee mooy dara ju walaa balut ju normalut waaye tey bis yam dog yëpp na day sangu julli da ko gis démb mu dog tey tey bi mu dogee sangul te julli suba nga gisaat ko arrêteel julli gannaaw suba nga seet sanguwaatal julli kon bis yim sedd yëpp day sangu julli di woor bis ko gis nag mu bàyyi ci julle koor te di ko tegal di ko lim ba ba mat fukki fan juróom moo te fan juróom na sangu bu ko gis lu mu gisaat léegi wére di la parce que dafa dog nag nga toog lu mat fukki fan ak juróom mbaa ko ëpp doo doo gisaat deret xamal ne kon léegi gis mbërëg mu bees la bokkut ci mu njëkk ma wala fii seen diggante matu fukki fan juróom nag jàpp na mu njëkk ma jeexu ko dafa doggamtalu rek loolu mat naa xam mooy ki koy door tàmbalee gis su dee ki ko baaxoo gis nag mooy lim xam ci boppam rek ki ko baaxoo gis moom dana xam mbërëgum nam na muy demee waaye du jeexiital nag ci bu yeexee ak bu gaawee taaqur ak taqaddum taxaddum mooy mbërëgam juróom benn juróom-ñaari fan la daa am jeex tey ne juróom benn fan rek la am jeex taaxur mooy mbërëgam juróom-ñaari juróom benn fan la daa am jeex tey mu ñëw room bu ko dem ba juróom-ñaari fan door a jeex loolu mooy taqaddum bu njëkk mooy taaxur fu doon na jàpp ne fekkee dara juróom fan la la am ci am na juróom benn fan dog na sangu julli te woor juróom benn fan la daa doon tey ñëw doon juróom-ñaari fan bu matee juróom-ñaari fan yi dog na sangu te julli te woor ba tey jiitu ak mujj it du ca jeexital mooy moom kat njaal benn weer la daa gis baaxam tey mu ko ci mujj weer mbaa mujjug weer la daa baaxam tey mu ko ci njaal weer kon day jàpp ne maanaam saa bu ko gisee rek jàpp mën na jàpp ne laabut mu arrêté jullee ma ko waram saa bu dogee mu sangu te julli kon yeex gaag tàrde ga du ca jeexital njëkk ga ak mujj ga du ca du ca jaxital ci moom moom mi ko baaxoo gis nag su fekkee lam xamoon ci boppam ñëw na tey romb taxawut ñetti fan la cay dolli li feeg nag du romb fukki fan ak juróom mooy ji misaal juróom-ñaari fan la daa am dog tey moom juróom-ñaari fan dogut na ci dolli ñetti fan na juróom-ñett juróom-ñeent fukk am na ñetti fan léegi su dogee su dogee yépp na arité na na sangu te julli te te jàpp ne léegi fukki fan may baaxam su weneen weer dikkee mu jis baax dem fukki fan dogut na dolliwaat ñetti fan na ca dolli benn benn fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar fukki fan ak ñett bu fekkee baag ñett mate su dogee su dogut yépp day sangu te julli te jàpp ne léegi baa fukki fan ak ñett la néeg weneen weer su weneen weer dikkee mujj sat baax demaam fukki fan ak ñett dogut ñaari fan kepp lay dolli muy fukki fan juróom ndax nee naa la baax du romb mukk fukki fan mukk juróom su doolee ñaari fan su dogee su dogee yëpp mu sangu xam ne léegi wér di la waaye dootu dootu baax ñu xam ne kon baax lu mu yàgg-yàgg du weesu mukk fukki fan ak juróom su ko lu mu gisaat léegi ci daret ndax xam ne euh, dàmm fasaad la su ko defee mën naa man man mën naa mën na mën naa julli tawoor léegi ka ko ñetteel mooy ki ëmb ki ëmb néew na lool li muy gis baax su koy dikkal nag ci ñaari weer lay doon jàpp juróom benn weer su fekkee dana ko gis waaye na saa bu ko gisee la gën a bari ci moom mooy fanweeri fan mën na koo yées nag waaye ngeen jàppale ma fanweeri fan mooy li xam ne soo ko matee te dëggut na xam ne léegi wére di la waaye dootu baax waaye nag ku ku ku ëm néew na lool lu muy gis baax waaye ngeen daan néewi laab nag ci jigéen yëpp ngeen daan néewi laab mooy fukki fan juróom wax na juñu naa ko ci gannaaw fukki fan juróom may li nga xam ne laab lu mu gàtt gàtt dana ko man maanaam su gisee baax ba mu dog lu mu nee na wanaam lu mat fukki fan ak juróom doo gisaat baax fekkee baaxam matul fukki fan ak juróom su fekkee man amu ko amul fukki fan ak juróom ko léegi damu fasaad la fekkee matul fukki fan ak juróom na jàpp ne kon mu njëkk maa doggantalu waaye ca la bokk ba tey mu lim ko ca da da xam ne kon baaxam day daal day soppi ko su fekkente la weesu moom la baaxoon kon daal soppi ko léegi lam xamoon ci day daal di soppi ko su fekkee man na fukki fan ak juróom nag kon na xam ne kon lii mbërëg mu bees la muy tàmbaliwaat juñoo naan yi su fekkente ne mm, eh, mbërëg dafa doggamtalu maanaam tegaloowut day gis baax bis bi set bis bee gis baax bee set bee nga xam ne diggante mbaax ma ne amoon laab day dox ci diggante bi te matu fukki fan juróom kon bis yi nga xam ne seet na ko yëpp da cay jullit sangu te woor bis yam ko gis gis yëpp nag day day day day day dog day dog kooram bàyyi julleem kon mooy la mooy la aju ci baax ñëw na ci istixaada istixaada mooy dereti jorngel jorngel juñu naa ko léegi mooy deret joo xam ne wér di nga xam mooy ki kii daal du laab mukk du seet mukk nga dafa tax ko deret loolu lañu tuddee istixaada walla di ko wax jorngel moo xam nag jorngel ba dafay dafa toftaloo wala day dogantalu nga xam ne maanaam du seet lu may ñaari fan mbaa ñetti fan rek saa bu am ñetti fan gisaat ko mbaa soo am benn fan wala ñaari fan gisaat ko nga xam daal moo xam ne dafa toog toog dafa taqaloo continué du taqu taqalu dal wala saa saa bu seet daal diggante seet lu gàtt lay doon ñaari fan wala ñetti fan delluwaat ci loolu lépp ba tey mustahaad lañ ko jàppee mooy ki am jorngel fekkee xamu ca nag wenn melo wu ràññee kon da koy da koy delloo ci cosaanam wóorlu aadam wala aadam rek su fekkee ne amu ci benn benn ràññee nag ci dara di ndax maanaam léegi dañuy wax ne deretu jorngel ñee na ne day xonq curru te dereti baax day day day xaw day gën a day day xaw a ñuul ñu ne deretu du am xet te dereti baax day day day day day am xet dereti jorngel neen day woyof te dereti baax day day diis maa day day far kon su fekkee am na ca ràññee ci ne day mel ni kon saa bu gisee deret ju far te am xet te jëm ci ñuul mu xam ne loola baax la saabu bu gisee deret ju xonq joo xam ne dafa woyof eh, dafa xonq te woyof te amul xeet moo xam ne kon lii jor ngel la waaye su fekkee amu ca genn ràññee nag lool àtte ya dañ ci ñëw ci dañ ci ñëw ci kanam incha leeral su fekkente ne xàmmeewul nga xam ne mën a amul amul teqalikoo ci diis gaag woyof gaag xonq gaag ñuul ga wala xeet gaag ñàkk xeet ga ba de subaa beneen àtte benn àtte lay doon dañ ñëw ci kanam su laabee nag ana nan lay xamee ne laab na eh, su ko defee ñaari ñaari màndarga la ñaari màndarga ci lay mën a xame ne laab na ba njëkk mooy fendi su fekkee kanam dafa fendi na koy xam mooy day jël aw morso walla wëteen dugal ko ci su ko dugal ci dugalee génne taxul dara ci deret mu xam ne sedd na lool mel na mandarga la la ca mandargam ñaare mi li ñuy tuddee alxisatu alxisatu wolof da ko firee tikki tikk am ndox la muy génn ci moom di ndox mu weex moo xam day xew a niroog maniyu wala mu xaw a niroog eh, nu ñu ko waxee te li ñu li ñuy tuddee laso saa bu seen ndox moomu dafay tegtale jeexu baaxam ki gis baax saa su gisee ndox moomu rek ndox mu weex moomu rek na xam ne kon léegi set na ak set lay tegtale kon léegi mën naa sangu te julli tawoor ki nga xam ne fend rek la baaxoo gis maanaam ci fend gi la baaxoo xam ci boppam kon saa su gisee fend na sangu te julli ki nga xam nag alxasatu la baaxoo jis muy tikki tikki bi muy ndox moomu la baaxoo jis mooy saabu saabu ko gisee na sangu te julli ki ko baaxoo gis nag bu njëkkee gis fenn da koy xaar bu gisee fenn te gisagul tikk-tikk na xaar ba ca mujj waxtoo ba nga xam ne des ci waxtoo mu jul benn rakka fa xaj su ko gisu nag mu door a sangu su waxtu yaatu nag mu xaar ba jis tikk-tikk bi door a sangu julli kon ki nga xam ne dafa baaxoo gis ñaar yépp fekkee dafa njëkk a gis tikki tikki te gisagul fend na daal di sangu fekkee tik fekkee fend gi lay njëkk a gis na xaar tikki tikki bi ba ca mujj waxtu wa mujj muxtaar ma mu door a mu door a sangu julli su kii gis tikki mën naa mën naa sangu ci bu gisee tikki bi kese kese gisagul fend rek mën mën naa cee sukkandiku bañ a xaar ak fendi ba ca mujj waxtu ni ma ko waxee léegi waa dañ cee nattale nag laab ga foo xam ne mën na fee mën na fee sangu julli fi benn rakka su àggee fa woon subaa mën na mën mën mën mën naa mën naa sangu te julli soo dee ko mën nañoo taxaw foofu kon teg suñu baaraam ba suba ci wi incha allah ñu ñëw nag ci ñaanu bis bi tey ñaanu bis bi mooy allahumma aslix li diini alladi huwa ismatu amri wa aslix li dunyaaya allati fiha maashi wa aslix li axirati allati fiha maadi wajcal alxayaata ziyaadatan li fi kulli xayr wajcal almawta raaxatan li min kulli charr li mu fiir ma yow yow sun yewinal yàlla nag ma yewinalal sama diine ji nga xam ne mooy sama muccug mbir da sukkandikaayu mbir te nga yéwén la sama àdduna ji nga xam ne ci la sama dund nekk yéwén na la ma sama aaxira ja nga xam ne mooy sama delluwaay danga def dund gi mu nekk ndollan ci man ci wépp yiw danga def dee mu nekk noflaay ci man ci wépp ay ñaan nga am solo bokk ci ñaan yi ñu toxali saasam muslim solo ko xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne innal mayyita la yu àddabu bi bukaa il xayyi aji faatu dañ ko mbugal ci jooyu koy dund kon mat naa bàyyi xel ki faatu jooy ko ci jooy say rongoñ tuur nga amu naqar wàññiwut dara waaye di ko yooxu naan fu ma koy waxee jeg fu ma jëm di xar ko ci suusa loolu loolu dañ ciy mbugal ka faatu nañ ko bàyyi xel kon ku faatule te bañ te te bëggal ka nga ka nga ka nga faatule jàmm bu ko jooy soo ko jooy nag na nga yem ci say rongoñ génn waaye yooxoo ko xàllaañoo ko fu ma koy waxee jeeg fu ma jëm loolu dañ ci mbugal ko faatu dañ ko baay xel baax yoon saa suma ko nee na dañ mbugal ko faatu ci jooy aji dund jox leen di dee incha allah suba ci waxtu yi seen mbokk seen seen la woon seen ñu ñaan li gën ci ñun yàlla defal dëppal li gënal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu